كل شهر وفي سفر حماني على ماهن مع الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رضيت عن المولى وعن خير خلقه may d'abord tàmbali d'abord di sant sëñ bi xamante moom moo yore lépp loo xam ne liggéey la ci centre ci université euh, Cheikh Amadou Bamba bi nga xam ne sëñ sëñ bi sëñ Mountakha moom moo ko tàmbali woon ah, mu nekk projet mu nekk aussi euh, vision ci éducation de manière générale au niveau national donc président Macky Sall ñu aussi vraiment amoon yéene pour jàppale ko ci mooy maanaam tàmbali fi li ñuy woowee les centres départementaux Je crois que le président avait lancé depuis le début un vaste programme de construction de 45 centres départementaux au niveau des au, niveau des 45 départements du Sénégal donc mu noonu nag léegi nañ ko tàmbalee Touba mu nekk un centre de référence boo xam ne dina am 15 bâtiments mais aussi am euh, cinq filières yoo xam ne dina mën a permettre ndongo yi bu ñu paree jàng daara ñu mu leen tàggat ci wàllu métier dina donc centre boo xam ne dina dina mën a accueillir junni apprenant ci filières yoo xam ne dina dina tourner autour de des bâtiments de l'agroalimentaire, de l'artisanat, mais aussi de l'informatique. Donc c'est un centre qui va avoir, qui, bu xam ne am na 15 bâtiments mais aussi euh, pour un coût de 2 milliards 500. léegi vraiment gis nañu vraiment avancé na c'est donc pour nous de remercier bi nga xam ne mi ngi fi yëpp ci euh, ci ndigalu sëñ bi nga xam ne tey moo taxaw di coordonner liggéey bi bi ñu taxawalee bu ñu toogee tey ji réunion gis nañ vraiment mbir mi am na benn genre implication de de tous les acteurs. tey ji as waa assainissement ñu ngi fii waa Ageroute ñu ngi fii donc c' est une c' est une coordination combinée boo xam ne saa va aboutir vraiment en un travail intelligent. waaw loolu na xam naa ne ci kaddu ndigal yi ci ci kaddu kilifa yi la ñun dañoo dañoo pour ñëw vraiment xayma liggéey bi incha allah xam naa aussi madame madame le ministre dina fi ñëw Mariama Sarr dina ñëw fii. comme ni comme tànk ñu joxe tey mu ñu aussi xayma liggéey bi incha allah su boobaa je crois boo ko posé question bi dina euh, euh, a leer. merci beaucoup jërëjëf. كل شهر وفي سفر حماني على ماه مع الحبس والسفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه عجيب به لي جاد مغن عن النفر رديت عن المولى وعن خير خلقه